je préfère poser des questions léegi est ce li nga wax noonu cest à on l'a senti milieu terrain bi ak yooyu noonu euh, est ce que le le, le prochain retour de de Nampalis dina dina dina dina régler loolu parce que. foofu foofu nag la problème bi nekk. parce que aujourd'hui boo xoolee mais les jeunes ont pris le pouvoir ah. Ouais. qu'on le veuille ou non. Mm -hmm. Euh, ces garçons-là Pape Gueye euh, ak euh, ak Lamine Camara il serait difficile de jouer match sans sans sans les titulariser c'est ça maintenant c'est à Aliou Cissé de ban ban kii la mayonnaise la war mën a def pour que voilà mu mën a mën a jàpp ba ba am une euh, osmose entre les jeunes et et, et les cadres mhm. mais de mon point de vue aujourd'hui euh, gis nga match Coupe d'Afrique xale moo koy def dëgg la surtout match bi ñu joué démb 14h. xale ko waroon mën a joué ak tàngoor bi. Mhm. Nampalis il revient de blessure. De donc blessure, il faut que mu cukki cukki ndànk-ndànk. bon euh, ci rôle am y' a Abdou qu'on a fait jouer xam nga au milieu pour que moom mu mën a mën a servir quand de de de voilà nekk un milieu récupérateur daanaka quoi. peut être di séddale ballon yi ci ci ci ci ginnaaw. bu ñu nekk en phase offensive dafay. jouer en trois défenseurs donc moom pratiquement sur les relances mu ngi foofu. Mm-hmm. mais les jeunes ont pris le pouvoir qu'on le ou non. Mm-hmm. il faut qu'on accepte les mutations yi am en en équipe et je suis pas totalement d'accord avec un Aliou Cissé qui dit non euh, Lamine Camara xale la nagam non c'est-à-dire que a il a vingt ans. mm ailleurs un garçon aurait fait un bon match en équipe nationale ou en club mais le lendemain la presse dafay enflammé wu ci ci ci jeu. est-ce que nekk ragalul aussi que mu impacté parce que y a un manque aussi d'expérience boo xam ne après buñ la buñ la mettre trop la pression su du mujj nekk poids ci moom ak yooyu. peut-être que su du loolu la ragal ko n'est pas la okay. ce garçon que j'ai vu ah évoluer bon non il ne connaît pas la pression mm-hmm. il faut le voir jouer à Metz mm-hmm. pour nga comprendre gosse bi dans quel état d'esprit il est. Mm-hmm. c'est un c'est, c'est un garçon 20 ans 20 ans. mais, a en football 20 ans. mais daanaka daanaka yaa ngi commencé jëm ak en football. parce que de, les grands footballeurs beaucoup euh, dañuy génn à 17 ans 16 ans 17 ans. oui oui 18 ans donc il faut pas que il faut ñu bàyyi ay xale laak nangam. mais dans le contenu mm-hmm. ci li muy football mag moo koy football donc que l'on dise bon buñ ko buñ ko kii bu buñ ko dañ ko war a dañ ko war a oh, il faut lui donner xam nga gis nga équipe yi yu ñu luy différence entre équipe yi yenn yi en Europe nag bu ñu amee benn benn boy mm-hmm. dañ koy def saar dañ koy présenter comme comme mais attends Lamine après cette CAN là s'il continue cette dynamique la il va quitter médecin ça c'est clair mm-hmm. parce que beaucoup de de de de kii sont derrière derrière lui. donc faut pas que xale la xale la. xale la waaye loxoom set na te xale bu loxo bi setee rek day mën a bokk ak man yi